Vinicius Junior mu paraj parajee équipe bi la di Bayern Munich gone gi def na ko léegi cap stade am Allianz Arena daanaka dootuñu fàtte bis bu métti bi nga xam ni gone Madrid yee ngi teg na ko ci taabal ji gannaaw bu ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo yàlla na jëm kanam information yu wér te wóor abonnement yi ba mos ñu dem ci li nga xam ne mooy information yu wér ba daanu na Vinicius Junior rëcc na ci li nga xam ne mooy gute gi Bayern Munich foofee cap stade am bëggoon a jàpp gars yi caxat caxati leen waaye loolee daanaka mujjul am ndax ndax bi ñu footballé lu toll ci ñaar fukki minutes ak benn wala ñaar fukki minutes ak ñeent la Toni Kroos daal di lijjanti benn passe boo xam ne deux touches de balle la yaakaar naa ni ba mu ko yollu nga lay gone gi gone gi caxat caxatee foofee pelanti 83 mu jox leen ab doublé moom ponkal mi di Vinicius Junior ngeen gis taxawaay bi nga xam ne am na ko bu am solo Bayern Munich le Leroy Sané di international sénégalais bu xeeb boppam moom it daanaka dugal na ca match boobee ak Harry Kane sur pelanti 57e la Perez ngeen gis ko noonu wala le Perez ki nga xam ne mooy Vinicius Junior match retour ba gars yaa ngi koy bàyyi xel fii lu toll ci daanaka ay fan yu néew bu ko defee ca Santiago Bernabéu day ànd ak Toni Kroos toj li ngoom daal di paccal kaani bu ko defee ca Santiago Bernabéu ñax mu tooy moomee gars yi régler situation yi bu ko defee lépp taw féex ndax match retour boobee dana nekk match boo xam ni histoire dina ko bind ndax fi mu nii daanaka Real Madrid am na benn option ngir mën a jàll ca biir final ba option boobee nag ndax Bayern Munich dana ko ko may loolee nanu yónni yàgg ñu gërëmaat leen sant leen ànd am na solo kon information jërë ngeen jëf.